l'armée sénégalaise dafa nekk armée républicaine mais aussi li ko dëgëral dëgg mooy le concept armée nation boo xam ni c'est une réalité au Sénégal mhm. moo tax généralement armée bi toujours dafa nekk en symbiose avec la population mhm. doo xoolee on parle des forces armées am na gendarmerie am na armée mhm. gendarmerie bi moom mooy impliqué wu plus si force de l'ordre parce que doo gisee force de l'ordre dafa am première deuxième et troisième catégorie police mais armée ñoom euh, ak population bi vraiment dafa dañuy nekk très souvent au côté des populations. doo gisee euh, ñoom dañu habilité wu armée ñu assurer quelquefois le service minimum. maanaam su amee grève pap ce n'est pas euh, que l'armée dafay nekk briseur de grève. mais pour ñu assurer la continuité du service. am na toujours ay éléments yoo xam ni dañu leen di préparer former leen. pour ñu mën ñëw pallier pour soulager la population. mooy li amoon ci tabaski bi. mooy ci tabaski bi gendarmerie jël ay. chauffeurs jël ay chauffeurs ñu ñëw euh, dawal affaire yi. soulager population bi loolu mooy rôle armée de c'est que population bi rafetlu na ko bu baax a baax. maintenant yenn yi ce sont des mesures euh, conjoncturelles. gis nañu ni affaire intrant yeeg yooyu. Hmm. xam nañ ni mu daan demee. Euh, njuñ njaaj bis daan am nga xam ni daawul egg si ñi nga xam ni ñoo ko yelloo. bi contenu de l'urgence et tout cela et puis xam nañu aussi armée ak rigueur bi ñu àndal. Hmm. mën nañu dimbale si loolu paysans yeeg yooyu. Hmm. ñu mettre leen en contribution parce que aussi armée et l'armée est bien répartie euh, sur l'ensemble du territoire national. Euh, à part ñoom il sera difficile de trouver euh, peut-être d'autres acteurs yoo xam ne daañu ko mën def à moindre coût voilà donc euh, loolu benn la ensuite le fait que ñu wax contrôle ay contrôle depuis xam naa c'est pas c'est pas l'armée en fait on parle des forces de sécurité et tout ça mm. donc am na si ñoo xam ni xëy na si policiers wala si au niveau du corps de la gendarmerie ñoo xam ne daañu leen impliqué. si loolu mais vraiment kooku c' est pas quelque chose boo xam ne dana dévier l' de sa mission principale qui est euh, euh, la sauvegarde de, de l' intégrité territoriale et pourtant aux États-Unis gis ay inondation mais c' est l' armée qui vient en renfort ñooy sol saaku suuf yi ñooy arrêté les digues et cetera la garde nationale qui est là oui. les tout donc moo tax nit ñi dañ ko war aussi def seen bopp. def mais est-ce que du concept armée nation boobu moo raflé woon ba nit ñi yaakaar ne armée warul def li armée dafa war a fépp askan wi soxlaa dafa war a ñëw jege askanam. merci euh, Birama defe naa ni euh, touché nga ko du doigt parce que xam nga euh, régime bi fi nekkoon en réalité favoriser woon lu mel noonu parce que dañ demoon ba population bi sax retourné wu contre les forces de défense et de sécurité. Hmm. finalement. muy les militaires les gendarmes les policiers ils étaient vus perçus comme des ennemis comme du peuple ennemis du peuple te loolu moo warul am moo tax li ñuy def ñii ci programme bi doon ko liiree euh, dañu ni dañu bëgg vraiment redorer le blason euh, de notre euh, des forces armées mm